les collaborateurs des ministres, chers collègues. Nous sommes conscients que la sécurité est la première des libertés. Par conséquent, les questions sécuritaires ne doivent être ni instrumentalisées, ni politisées par le pouvoir, encore moins par l'opposition. C'est des questions de sursaut national. Mieux, elles doivent faire l'objet d'un consensus national Elles doivent être gérées et traitées avec responsabilité. D'ailleurs, le dialogue doit toujours primer. Et dans le rapport, ont relevé cela. Ils ont dit qu'ils souhaiteraient et qu'ils vous ont suggéré qu'il y ait une grande collaboration dans le cadre des réformes du secteur de la justice. Monsieur le ministre, nañ ko def boo gis te nag ku am responsabilité jiite jàpp naa ne da nga war a am comportement bu exemplaire point de leadership sans éthique point de leadership sans comportement exemplaire donc ñun homme politique yi ñun ñi nga xam ne dañuy wane ne ñun dañuy def politique je pense que ne jot na ñu soppi suñu jikko am na yi sénégalais yi nawlootuñ ñu sénégalais yëpp muy pouvoir di opposition kenn nawlootul homme politique yi da ngay rus sax am gàcce sax ne homme politique la boo gisee yenn comportement yenn basse suñu ne ngeen baal ma nag ci kàddu yu dëgër yi ma yëkkati voilà monsieur le ministre dama la doon wax ni nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee ko gën ndaxte Sénégal lépp ñëpp la lu ne ku nee ci je pense que question de terrorisme nekk na question bu nga xam ne c'est une question centrale et dafa war a ëmb ma jumelle ma jumelle man ruubeewu ma de te dàqoo ma ko dàqoo ma ko nag voilà avec tout le respect que je vous dois avec tout le respect que je vous dois tout le respect que je vous je sais faire ça mieux que vous mais par respect au Sénégalais qui nous regardent je ne me rabaisserai pas à votre niveau monsieur monsieur le ministre monsieur le ministre les Sénégalais nous regardent et je pense que la question liées au terrorisme devait être débattu de fond en comble tey lépp loi bu ñu voté ci Sénégal daf ñu engagé ñun ñëpp dañuy sëkk d'accord ci même si bu fekkee ne d'accorduñ ci moo tax yenn débat yi bu ñu ko war de waruñu ñëw ba fii di leeral la lanterne des Sénégalais waruñu xaar ba nit ñi naan suba génn leen ñuy door a expliquer je pense que séance d'explication boobu moment de communication yooyu moo njëkk jiitu ndaxte loi pour askan bi lañ koy def bu ñu demee nag ba mënatuñu expliquer askan bi loi yi lan la wund je pense que nañ ko bàyyi te je pense que ne question terrorisme am na am na am na solo boo xamante ne ñu ngi koy lié ak extrémisme violent ñu ngi koy lié ak obscurantisme ñu ngi koy lié ak question de pauvreté ñu ngi koy lié avec la porosité de nos frontières ñu ngi koy lié avec la le chômage endémique des jeunes je pense que ni débat yooyu noonu dañ ko war a soulever parce que gis nañ fi ay réew yoo nga xamante ne jege nañu nit ñi dañuy dem di soutenir djihadistes yi au détriment de leur propres soldats te lan moo ko waral dañu jàpp ne ñu nekk ay soldats souvent dañ leen di noot ñu nekk ay soldats souvent dañuy def corruption mooy waral yenn saa yi ñuy dem sax di leen jàppale au détriment des force de défense et de sécurité ma jàpp ne genre luwaay yi buñ ko waree di def kenn neewul waruñu toog ne nañu te nañu légiférer sur les questions de terrorisme mais budget programme mu ngi fi UEMOA ba mu ko décider kañ lañ toog door ko mettre en œuvre ak yeneen ak yeneen yeneen am na ay résolution Nations Unies yoo xam ne moo ngi fi kenn laalu ko je pense que ne question bu essentielle bu mel ni bii nga xam ne nit ñi dañu njorti ne dafay laal suñu ay liberté ginnaaw bi état amee responsabilité protéger tous les citoyens noonu la amee pour responsabilité wax ak bépp citoyen mais waruñu xaar ba dënn yi jug xool yi jug qu'on en vienne aux pour pouvoir explicité le contenu de nos lois parce que les lois une fois votées nous engagent tous waxuma ko nag pour sànni xeer waxuma ko pour xarab dama koy wax pour defar ndax Sénégal ñun ñëpp la ñor ñun ñëpp ñoo bëgg Sénégal ñun ñëpp ñoo fonk Sénégal ñun ñëpp ñoo am responsabilité ëllëg si biir bu ñu paree li ñu dénk ñu ne lii ak lii la ñu def waxuñu ko pour nit ñi foog ne dañuy wut buzz bu doon loolu la ñu dem defi leneen ndax ginnaaw assemblée ñun am nañ beneen vie bu assemblée jeexee dañuy dem defi suñu liggéey dañ koy wax pour defar dañ koy wax parce que Sénégal moo ñu ñor te bu réew mi di tat kenn du si mucc kenn du si mucc encore une fois kenn du si mucc du presse du pouvoir du journaliste du imam du kenn jot na nag réew mi ñu mel ni ñoom président Moustapha Niass nga xam ne ñooy magu réew mi ñu woo pouvoir comme opposition ñu tirer le leçons des événements de mars nekk toujours en venir aux mains on va vers l'exploitation du pétrole et du gaz gis nañ fi ay dëkk yu tàkk ñaanaluñ ko suñu réew waaye gis nga lii raam si nag bi la jëm te bés bu fi yeggee bés bu fi yegsee ñun ay xale lañ xëy na ñi mag dañuy dem bàyyi ñu fi bugguñu réew muñ ñu bàyyil muy tàkk bëgguñu réew mu ñuy assimiler à un génocide bëgguñu réew mu ñuy bu ñu xam ne dañ koy assimiler à de la violence nous voulons un pays calme nous voulons un pays serein nous voulons un pays juste nous voulons un pays où tous les citoyens s'épanouissent et vivent dans le vivre ensemble je vous remercie monsieur le président mes chers collègues la parole est à notre collègue Moussa Sané après il restera 20 orateurs encore 20 orateurs c'est-à-dire une heure d'intervention encore, monsieur le ministre. Vous allez encore avoir des questions pendant une heure. notre collègue Moussa Sané se prépare, notre collègue Yaya Diallo après Moussa. waaw